soo ko dégloo xet di xet fi ne bëri ku ci nekk na defaruwaat waaye àqu njaboot bi da mm. oyof sër baakaar la macha allah ba nga xamante ne soo wéetee ne sama yaay li mu nekkee neexuma ma sañoon miir di wa may jur sama yaay du ma jur mm. asalaamaaleykum maaleykum salaam ngi lay ziar maa ngi dellu ziar bu baax euh, tur bi naka la ak foofu man la Marème man la benn rakku déggan bu nekk France woote woon fan man la Marème Niang. ndeysaan ndeysaan ziar yéen ñëpp di leen nuyu. ndeysaan ñu ngi la waaye itam yi ngeen di ngeen yàlla leen ci yàlla dindil seytaane daal. ndax doom bu son. Mm. bu màggee bu gërëm xalaat. Mm. te diggéen eh, ak doom ju fa mm. waaye comme ni wolof di wax rek junju doy na mi njëkk commencé mooy fii ak yaay toog di xeex xale am trop tuuki eh? ak dina nga kenn naanum nga tekk ñaareel mu ñetteel hmm. xale di gis waajuram ak góor yaayam mu topp la ngay màgg ba quarante ans yow bloqué jamais doo normal doo mën a normal. am na yooyu gis ci sa biir kër yoo xam ne âge de deux trois ans e nga koy gisee yow dootoo normal. da top topp ba nga màgget. da lay topp ba nga màgg boo moytu sa relation sa jëkkër sax yow dootul normal. papa Ndiaye léegi dafay wax sama yaram bi di daw mom moom muy wax war na di ko répété macha allah. nee na ca tànneef wàll ca ngay commencé. waaye tamit. mën ngaa foog ni tànn nga lu baax fekk baaxul. waajur yi nañ def ndànk lu mu wax sànq booy xulóog sa jabar sax wala sa jëkkër bu do bu xale ñëwee. Hmm. ndax xale bu am trois ans elle a pas demandé à violence déjà violence déjà. Sénégal nañ def action. Hmm. benn jabar ñaari jabar yóbbu bu sañoon du ko tudd. Hmm. waaye yàlla nee gis naa man te sama xat nañu léegi naanuñu muy teg ci jabar di teg rek. ku wax mu saaga mu saaga la ndey. jabar wax mu saaga la ndey. doom wax mu saaga la ndey. yan baal sa doom. pour ëllëg ndax baal bu la yaree yow boo màggee boo doonul baadoo la man yàlla la bëgg. Mm. jigéen daal mu ngi jaaree bu baax a baax. jigéen ñi ngeen jox moom mooy si kilifa mooy si kilifa. jërëjëf waajur yi nañ def attention. jërëjëf Niang bu sañoon bu màggee. ndeysaan gërëmul du xalam. merci beaucoup. jërëjëf Niang ah, waaw. Euh, hmm. xale bi lay tontu soo ko ñëw ci moom. Hmm. moom. Hmm. li tax yaayam kontaan yaayam ma ko xam. bu jëf dem yaayam ma ko jëf kon. dëgg la dëgg la xam nga amul gàcce di mm. tax yaayam contre ko bu amee yaayam am ndax la tax ma contre ko moo xam mm. dëgg la wax nag bu ndox tuuro ñu ni mm. foogu waraatal te foote waa te gàdde ndox ma ba dootu tuur ak laa wax sur ni la aw xiin la ma ma jiw sell na bul pressé ndax mën naa doon ngelaw boo jiyee doo déqi déggoo ma alaaji dama indi ceinture de sécurité de la ci jublu nii jublu ah. ma bëgg a wax tuuti la rek waaye lii dama gañ si caam di tey ak yaa tax may reetaan ba di tëdd ci fa tey dama loo xam ndaw si dëkk përi barkal la ñang moytu Mamadou tànneef ak tànn ak ñetti fasu naaru góor la fu saana jotagul rek drapeau daanu nan di bàyyi xel ci diggante ñaari jur bu ñu te xel ma rafet nañ ñu arbité yeroot bu seen bañwaar feese ba liggéey du tuur wax ci normalul nañ dëxëñ mu du ndey daa foor saa bu bàyyi yëkkatee kàddu gu dul noonu jëmali ci ndey doom te xuutu neex dëgg bu ndey wëlbati ko waatee song neex bu dee doom bu góor toog na xolam soo na wëlbati li déggeen def ba nag la ca ñaw yab la jiituma jur mbir la waaye su ma doon wëlbati ko waa nag di taal bàyyi bii du ma ngénte dir la na fi Mamadou damay far yox su nañ di fonkaat li nu yàlla te jéem te mat yombul nag doom la waaye amoon na mooy waajuru jigéen kuy simmañ wi aayam personnalité dafa xaw a tukki wayaase hmm. lu bari dégg ngeen ak gërmee fi nekkoon hmm. doom di ko moytu hmm. bàyyi daa war a moytu doom ndey moytu nu ñoo moytoo ruus na maa def nangam sama doom di ko doom arbitre la mbay doom arbitre yi nekk biir stade Demba Diop ibam sànc di xool combat dañuy féexal seen xool waaye arbitre xam ko da fooy génnee. waaw fooy ne ñu tàgg. Euh, euh, xam naa thème mm. thème bi thème bu doy waar. thème la boo xam ne bii war na yoo xam ne làmmiñ du ca dem. Mm. xel moo ciy dem. Mm. ndax lii papa ne. Euh, bu génnee. day am lu muy nuru. moo tax xel xel moo cay dem. ba làmmiñ du ca mën a dem. waaye nañu wax ne way jur yi hmm. nanu dëpp hmm. dëppe mooy hmm. nu dëgmal waaye gi ba nga xam ne féewaloo ngi ci seen biir li koy defar mooy nu dëpp yemale ñëpp ci biir gi bul xool bul xool ki mën a joxe paasu ki ko amul bul xool ki nga xam ne moo yore ki ko am nga sàmmoon ci ak loolu. Mm. Mm. dina tax daal dëgg-dëgg jàmm am ci biir kër gi. ba boo léegee boo dëddoo. sa njaboot nekk ci benn. waaye kër yi jaxasoo de. Mm. réew mi jaxasoo na de. Ah. tey da ngay nekk ci biir kër. gi mel noo xam ne nii la. da tudd yàlla. te du la gën kooku nag li koy sàmm. mooy wërjur na nag ñoom ñoo. dafa rawate na nag bàyyi dëgg la. daw ak ndax baay bàyyi moo gën a cati ci kër. Hmm. ndax ndey dafa jege. bàyyi moo gën a cati. kon kooku. Hmm. lu mu lu mu sàmb rek doy. kooku bu moytu dee war a am moo war a moytu. Hmm. moo war a deltu ginnaaw. moo war a seet. moo war seet ni muy jëfe moo war a sàmm moo war a sàmm. ndax moom moo gën a catee. bari na barka ñu toog ak seen ndey bu ne tële ci kër gi. ñëpp jóg kenn du la jox sa cër. dëgg dara jaru ko ci àddina jërëjëf jërëjëf Mbaye jërëjëf xam naa ni daal di ndokkeel na euh, réew mi yëpp mm. di ñaan jàmm ndeysaan di wax ne dëgg-dëgg yàlla ñu ko def at yu bëree bëri amiin amiin amiin di ndokkeel na sama jigéen sama xarit ndeysaan mami cuur bu mag prince ah kooku sama kooku sama niroo wàll la waa sa très bien mais sa sa seex boobu nag màkk la ma fa may xaalis na ba ñu bokk moo ma sañsel moo ma sañsel yii baax ku ma dajal ne ma kii du mami cuur na xaw ma di may mairie. waaw ko defee may joxee ay ay riyaal dafa xam ku yóbbee. muy Aïda Diakhaté. ndeysaan euh, dafa wax ni. Hmm. du mbay leen di bële. Hmm. dafa toog am lu wax ci sama yaay. Hmm. ci jikko ju rafet. ku xamul sa juróom sa ku xamul sa ñetti maam. loolu neex jëf. nee na daal. Euh, tubaarkàlla daal euh, ñaan na daal Serigne Babacar ci ak gàmmoo daal ba mu ko la koy jëlee ji indil la ko. Hmm. ndax ko wax fayu. waaw premier parti bi jeex waaw yokkante la rek. yokkante la laasana dugg na fi ñetti yoon. waaw yokkante la xam naa daal dëgg-dëgg eh, eh, eh. ba mardi ak jàmm. waaw waaw waaw. nag Famara nag dëgg-dëgg nanu. nanuy may. laasana dugg na fi ñetti yoon. laasana kay wax loolu dañaa gis. na na def attention. militaire la. na def attention. ndax moom day fital te xamu fu te xamu fu ne fital fan la. <laughs> attention di ndokkeel nag famille Salmon Fall yëpp. ndeysaan mm. ndeysaan. di ndokkeel bu baax yaa ngi def lu baax ci yeewu leen. mais ay dafa am loo xam ne li dafa nekk ci réew mi. waaw lu baax dañu yor. waaw xam ni ñu war a yore. waaw ndax ñi ko yoroon démb. daawuñu jàdd yoon dëgg la dëgg la ci ko tegoon waaye ko wàcc moo tax incha allah bii di ñëw kon yaa ngi leen def jox rendez bu ci yeewu leen waaw ci yeewu leen maa ngi dëgmal nag euh, age Abdoulaye Naar moo indi kañ kañ kañ jox ko rendez-vous alxames waaw alxames chaque jeudi yaa ci yeewu leen bu neexee yàlla lu am solo ngay indi mais loolu dafa am solo kon ñu dem dellu si incha allah na <laughs>